sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéeyal. wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sakur wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sakur. a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliima sillaali ilal jannaati baaxin tawassaat wa kulli wa maali zaana xaamin musassisu mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibu cheikh Njaay Gànna sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu mas naa ku ñuy wax sëriñ muhammadul amin gay radiyallahu taala anhu ne ko loolu ma dégg wala fi naan sàmba mënul kanamam man gannaawam mii sàmba te mooy sëriñ tuuba xaadala wallaahu loolu dalu ko sama njaboot gi su ma dëddoo ku leen bégal maa lay fay ku leen tooñ maay fayu siiw na sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu nee na ku gis sama waay mu naqari la li fekk ngay dégg sama turu waa joojee musibaam yàlla subhaanahu wa taala di xëpp ci sa kaw la lay musal daal mooy dema dem ba duutoo dégg lu bokk ca sama turu waa te sama waay bu ko laal sama kuur gii ma yor bu ma yegsee bala ma laaj lu xew day dal ba noppi te fu mu dal mu nooy bu ma ko dóoree ba foofa nooy ma samp ko laaj nag lu xew sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo nee na noo nee lay walloo sama waay siiw na kan mooy waayi sëriñ bi ku dul tooñ kenn te ku ko tooñ du fayu di jëf ndigal yi di bàyyi tere yi kooku mooy waayi sëriñ tuuba xaadal wallaahu maxtaaralahu wallaahu aalam sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg war nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal